sa loxo dem gémmiñ te tibb du ko fa yóbbu bi ma xëyee ma gis benn vidéo boo xam ne bii benn jigéen moo fa invité ñaar ñu wax ne dañuy dencante boroom kër ak soxnaam boroom kër bi ne soxna si nee na moom bi muy xamanteeg moom da doon sàcc ci seen kër ñu jàpp ko di ko dóor ca dóor ya nee na ci la yéege ci yaramam dara ba mu fa jógee muy laajte di ko topp di ko topp di ko topp ba xam fu mu dëkk gisanteeg moom ñuy ngoro yoo nee na mu dem wax koy mbokkam ñu bañ waaye ci may ko ko lañu mujj alkande dikk na bi may seetaan vidéo bi dafa mel damay gént wala nga ne ah xanaa moos damaa jommi sax ndax nag lii moom ci beneen plateau beneen planète nga nekk yow xalaatoon naa nit nag dañuy théâtre comme niñ koy faral di defee ay nit ñu bëgg buzz bu bon di def yu mel nii ngir nit ñi mbamb leen coow leen waaye même su fekkoon ne théâtre la danga koy tuddee promotion de la délinquance maanaam daganal naatal ak caay-caay akuk mbon ndax sàcc la mooy sama liggéey nangam nangam su dee dëgg la nag nga ne parents yi kon sacrifié nañ seen doom bu jigéen xale bi jigéen bi alku na su fekkoon ne dañu ne mbëggeelam moo ko ci yóbbu mu fexe ba convaincre waa ji jële ko ci caay-caayuk càcc jël alalu jàmbur teg ko ci yoonu njub jubbanti ko nga ne waaw waaw gis naa ba tàyyi ay jigéen yoo xam ni dañoo daje góor gu naan sàngara ba abriti yàqu wala góor guy def leneen wala góor dajeeg jigéen joo xam ne ji dafa sàggan mu naxanteeg moom ba génnee ko ca loola su boobaa fu ñu wër di ko wax dañu naan ñii kat ñi ngi joxe exemple ku nekkoon ci yoon wu dëng jóge fa ñëw ci yoon wu jub waaye yow nga dem continuer di sàcc sa dabar nekk ndeyu sàcc ndeyu sàcc mooy receleur loo sàcc indil ko muy takke woor wala muy lekk walla muy sàngu wala nga dëkkale ko ànd ngeen alku jaar yoonu safara te wàccegu leen wala yaasu billah ñàkk ngeen jom te yabaate nga naan liggéey sàcc du liggéey sori liggéey may wax nga naan nañu gouvernement bi taxawu lan lañ leen di taxawoo xanaa jël leen sànni ca biir kaso yi tëj leen damm ca caabi moo xam naan fonction de travail fonction de travail ñaari baat yooyu mënuñoo bokk kon mooy wane ne niveau bi muy waxe sax day tiitaru di wane ne dégg na tubaab déggul luy nurook tubaab may wax mu ni nañ ko yóbbu assemblée nationale député yi voté député assemblée nationale de ñoom ku leen voté la woon sàcc yi nañuy ami droit ñu voté ko loolu moom lu ma leer la moom ndax ay sàcc nga ca biir yoo xam ne ñoom dañu ne woon ngéej ñu daganal leen li ñuy def ndax xam ngeen ci dara dégg ngeen ko fi ñu fi doon promotion ay ay visa di ko sàcc di ci def ak yeneen ak yeneen ak yeneen waaye kuy lekk alal ju lewul sàcc nga kuy lekk alal joo méritéwul sàcc nga loolu maa ko wax sama kàddu ca kaw ñu wax nag ci càcc sàcc mburu moom benn miisu mburu ak sàcc ginaar loolu mooy sàcc ci Sénégal moom lañ fi jàppe sàcc waaye sàcc milliard moom kenn tuddeew ko ndax boo sàccee milliar bala ñu leen am lu leen metti daal mooy bokkoo kook ñoom su boobaa daal sàcc nga waaye boo ko bokkeek ñoom moom doo sàcc l'aveu est la mère des preuves sinon la la reine des preuves nit ki daal bu taxawee ne mana mana lii bu dul théâtre yaakaar naa ne procureur mi nga xam ni bu ñu nee ñoxol njaay mu dugalu làmmiñam ci lu yoonam nekkut naan damay auto saisir te fekk booba ñu télécommandé leen yaakaar naa ne kon boo fekkee ne lii vérifié nañ ko xam ni du théâtre war nañ laa jëli laaj la fan ak fan fan nga mës a sàcc ndax nag waruñoo bàyyi ku mel noonu ci biirum réew muy lëmbe di ko tëggoo di dox di balaag nekk ci boppam te guddi gu ne ndeke mi ngi dugg di tëj di toj këru jàmbur yi en tout cas lu mën a xew image yu ñaaw yu yiwadi yu jekkadi laa gis foofu man suñu waxtaanu tey nag euh, mi ngi jëm ci doomi réew mi di leen soññ ñaax ci ngeen moytu di ànd ak ñoo xam ni ñi teraanga juñ leen defal bu ëllëgee ñu toog nettali leen ko te war ngeen cee jànge nag ànd ak nit mu jël alal di la jox walla mu lay jàngal walla ngeen seq leneen lu mu mën a doon nga xëy bés gis ko moom moomu muy siiwal keneen naan maa ko jàngal maa ko yar maa ko defal lii lu nekk ci moom mana a war ngaa xam ni yow kon kooku mu ngi lay dencal sa wàll xottil na kii tubéy su ëllëgee sa caayaan yi lay xaar lu yiwadee ngi noonu rawatina ci nitu diine di def nit dara di ko defal di ko xëllamtoo loolu lislaam bëggu ko lislaam bëggu ko ndax suñu boroom tabaraka wa taala ngi wax naan qawlun maarufun wa maxfiratun xayrun min sadaqatin yatbauha azan na kàddu gu rafet gu yiw gu jekk ànd ak jéggale ak jëllale moo gën moos sarax boo xam ne bii aw làmmiñ da koy topp di wax lu ñaaw te sadaqa boobu ñuy wax ci aaya boobu benn ëpp ci doole jàngal nit sa sadaqatun jaariya yi ngay dégg loola ca la bokk jàngal nit yar nit def ci moom xam-xam wàccoo nga ak moom su fekkee yàlla taxoon moom nu mu melaat ëllëg loola amoo ci responsabilité bi nga koy jàngal bu fekkee ne yàlla rek nga doon wut moom su demee ba nga xam ni ma ngay wax ak a def safaan même bu la ko jëmee yow waroo taxaw di wax naan maa def ci moom lii maa def ci moom laa maa def ci moom lale képp ku fi jàngale képp ku def ci nit dara dañoo def ci yow dara ku fi yëkkati alal may ko nit alal jooju nit a fexe ba nga jot ca kon noonu nga xamee ne ki la ko jox gore na ba noppi yow it amal ngor gu toll na suturaal ka nga xam ni yaa ngi koy jox waaye koo xam ne kii dangay jàngal nit ay ca saa yoo xamee ne daal yow wax na lu la neexut nga taxaw naan maa ko jàngal maa ko yar yow it dañ laa jàngal yar la li ne ci yow tuuti moo ciy sa njàmbaar wala sa ngóora lu ci bari dañ laa dimbali tàmbalee ci sa ñaari way jur yi nga xam ni ñoom ñoo fexe ba orienté la ca loola ba nga koy def jàngal nit nag taxul muy sab jaam taxul itam muy koo xam ni kii soo waxee loo xam ne lii du dëgg mu taxaw di la tàccoo di la fes fettasu nan la eskay nit jàngal na nit ñu dem ba yàgg mu raw ko romb ko di dem ëpp ko xam-xam fuuf ndax ki nga jàngal te amoo yow diplôme brevet wala bac moom mu dem ba nekk ci doctorat xam nga ne kooka moos du sa moroom nit jàngal na fii ab élève ci école primaire yi mu dem ba nekk ci docteur wala mu am ca licence wala leneen te yow mi ko jàngal soo demee brevet nga amoon dem def defi instituteur wala nga am bag dem nekk enseignant euh, professeur moom mu dem ba nekk ca docteur kon jàngal nga ko waaye mën ngaa tiitaroo jàngal ga wala boog nga ne mën ngaa bége jàngal ga mën nga koo sagoo waaye waroo fa taxaw nag di naan maa ko tiitaroo jàngal nangam nangam mën nga ne kii kat am naa fierte ci maa ko jàngal mu jaar ci samay loxo mu yëkkati ko di bànneex waaye mm, am digganteeg moom rek nga naan damaa yëpp waaye lépp ci man la loolu as gor du ko def waaye jullit du ko def nit mën na jàng jàng jàng ba yëy ay téere waaye su ragalul yàlla sàmmul ngorom ay waxam jarul wax bañ a jàng te di te nite moo gën jàng moo gën jàng jàng ba yëy téere yi te ragaloo yàlla sàmmloo sa ngor nit ki nag su fekkee ne doomu aadama yi bu ñu waxee dara juum nga jubbanti leen taxaw bëccëg ne dañoo juum wala boog lee ñu ko waxee du noonu saa yu ñu waxee ne dangaa juum dangay nangu ne dangaa juum ndax nag jamono ja nga xam ne nit da daan wax ba daaneel ñépp noppi wala ñuy fettasu wala bala ñu laa mën a diingat wala ñu weddi la dañ laa won ginnaaw jooja jamono moom wéy na ku yabu rekk soo jàkkaarloog nit ñi nga nawloo leen te may leen cër te xam ne buumu njaam gi fi nekkoon nit ñi di bunduxatal doomu aadama yi noot seen xel yi nocc ko muuc ko booba moom jeex na bu yàgg dootul amati ku say bokk daje nag ci mbir mu mën a doon say xarit daje say am di jàmm daje naan la lii du noonu di la artu soo doful xaruwoo doo baadoo la da dellu ginnaaw te xam ni yoon wa nga jaar baaxul nit toujours war na mën a màndaxe boppam ci ay mbokkam ay jegeñaaleem ay xaritam loolu moo jekk te rafet ndax nag ñi nga xam ni ñoom nga bokkal àddina say doom say soxna say dëkkandoo say am di jàmm say xarit dañu am wàll ci yow lépp loo xam ne lii soo ko defee mu metti leen walla ñu am ca kersa loola da nga leen cay may cër waaye doo def ku dëgër bopp koo xam ne kii ku wax ak yow mënulaa jubbanti kenn mënta dugal ci sa bopp wi aw xalim loolu baaxul boroom xam-xam su fekkee ne su waxee walla mu jëf walla ca defin wa mu jur werante walla mbamb walla mu jur béjoo war naa wéet ak njegeta njegenaayam ba xool loolu lu ko waral loolu mooy li rafet te jekk mbokk yi am réew nag ku fay yeewoo te xam sa yelleef lu mu jaral waaye ngir mu nappaaje sa sa yelleef yooyu wër na laa jaral lu ko ëpp fuuf pour nga sàmm ko nit ki taxaw di la bëgg a gëmloo ne yow yii nga xam ni moom nga jaar du yoon wa te mu leer la ne yow mii yoon woow nga jaar yoon wala yow daal na nga fexe ba moom neel waaw tutee nga def la nga bëgg a def te continuer saw yoon lu ko moy mën nañ laa jaarale yoon woo xam ni bii seen njëriñ dong dong dong dong dong moo leen tax di wax jamonoy tey jii nit ñi li ñu gën a baaxoo mooy def la nagu sarax nagu sarax nagu dëj togg la nit ñi këlëmtikoo la ba noppi ñu jóg dem doxi seeni soxla ko defee nag yeewu jot na ba ne jar te xam ni nag ku fi dajjantal ku fi dajant ñu pëkk-pëkkal la ba tàyyi soo moytul da nga fanaan àll te doo ko yëg asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa